ba tey rek ci xëtam gu njëkk ci leeral point net prison sénégalaise les chiffres du scandale dix mille cinq cent trente pour une capacité de mille neuf cent vingt li nga xamante ne rek mooy euh, prison gu Sénégal yi nekk gannaaw rek daal gi ñu daal di nemmeeku wàkk nga xamante ne rek daal prisonniers ci lu toll rek daal euh, ci euh, dix mille cinq cent trente deux ñi nga xamante ne daal dañ leen fa jàpp ci li nga xamante ne daal li mu mën a yóbbu daal ci quatre mille neuf la mën a yóbbu waaye tamit ñoom ñëpp daal ñu ngi fa daal di danqaloo gannaaw rek nag daal gi ñu daal di nemmeekoo ni ni mel prison sénégalaise yi daal dafa dépassé li nga xamante ne moom daal la waroon yóbbu bu ñu sukkandikoo ci libération ci altine ji di le 15 novembre 2021